demoon. ñoo ngi fii ci Grand Yoff rawatina ci koñu Arafat ci ñaareelu bëccëg bi nga xam ne daal dina taw fii ci ndakaaru ba tax na sax lii di ndoxu foos yi ak ndoxu taw bi dañoo dal di jaxasoo ba tax na sax kenn mënatul nooy ci marché bi ak li ko wër li ni mel nag jaaykat bi moo ngi koy nakarlu te moo ngi def kenn te lay kàttanam ngir jële fi ndox bu bon bi waaw xool fexe daal maanaam ba réegol yi maanaam di kii nga xam ne bu tawee rek ndox mi di man di dem parce que ndox mi fii ci kaw lay jóge quoi damaa xamul foofu dafa am maanaam benn nu mu demee noonu daal mais ci kaw daal lay jóge di bal di ñëw rek damaa xamul ne xumma gars yi seen foos yi la ubbi di ci nu mu koy xumma nu mu demee noonu mais doy na waar daal. ndaw ji la moom Grand Yoff la dëkk te li ni mel nag day a yokku saa nekk. di xeex ci affaire ndoxu foos parce que canal bi boo xoolee. ndoxu asalam Grand Yoff bi mooy fonsu asalam Grand Yoff bi mooy wàcc si ñëw fii chaque jour chaque jour chaque jour police Grand Yoff en face police Grand Yoff rek mooy mooy fees ay ndoxu fons fan lañ ko teg jàppale ñu defaral ñu fons bi. jaaykat yi la ñoom ñoo ngi yuuxu wàllu te di woo ONAS mu daal di leen di dimbali. ah sonn rek ci affaire ndox mi wax dëgg fa yàlla fons bi moom même bu dul nawet bi sax ba mu ubbee ba nageen ni dafa yàgg te dafa metti ñun ñuy jaay chaque jour dañoo sonn. ñi ngi dund xet goo xam ne métti na lool. waa ONAS war nañoo dimbali lii nag liggéey état la ndax du liggéey maire waaye ñooñu ñaan si yàlla waa ONAS dañu jàppale ñun grand chef sonn nañu pour nga dem si police sa problème la pour nga jéggi sa problème la dañuy mujjee di dévier. ku kenn xamul pour a nawet bi daal na tàmbali fii ci dakaar ginnaaw ñaari taw yi nga xam ne moom la ñu jot a nemmeeku rek yéen ci ay koj nag commencé nañoo taa rawatina fii ci Grand Yoff nga xam ne ñoo ngi woo autorité yi ngir ñu daal di leen di utal pexe laataa yeneen i taw di daanuwaat seen.